ولا لعين لسواي مدبرا بما على زهري يدوم دبرا مها توجه المكاره ليا باقي الحباب بذكره وهو ليا أنا رديت وعني رادي بلا مكاره ولا أمرادي رد لغير جهتي شيطانا من تيب الممر والأوتانا فدى لخير جفتي لحين يسوق لخيرنا المعين هديتي من الإله والنبي كليتي سفت وسفت نبي توفيق أهلنا قاد والإلهام قد بيالي ما لو أنبيام ولدي اليوم برب الخيب أعاسني ممن خلوا وخيبوا لا يتوجه لنحوي متعب عني محد مكاره وتعب سعادتي بغير محو كتبت وكوني العبد الخديم كتبت شكر لي ميسر العسير ما اختار لي بلا مسير allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xfir li jamia ma asida fi lmaali walxaali waxsimni min almaati fi lxaali walmaali amin ya rabbal alamin sëriñ bi nee na ñëpp toog ci suuf te déglu sëriñ bi bismillah bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala Cheikh Hamsatou sëñ saa ñu ngi lay nuyu di nuyu bokki taalibe yëpp xamal nga sëriñ bi moo ko yebal si woon ngir mu ñëw jaajëfal leen ak ñaanal leen teewal fi sëriñ bi teewal fi sëriñ Fàllu teewal fi jëwriñu liggéey bi yëpp di leen sant di leen gërëm si rafetlu liggéey bi rek mag gi nii sëriñ Isaax sëriñ Isaaqa mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullah mu ne kon jataay bii ni mu ko waxee léegi rekk nee na kon ci ndigalul Cheikh Mountakha ju mu jox Cheikh Mouhamadul Fadal mu digal ko ko moom sëriñ Isaab nee na loolu lépp nag dëkk ci bëggu soxna Baali jaaratullaahi Mariam ci bis bi ci waxtu wi ci dëkku turandoom bii sëriñ Isaa mu ne kon mu ngi leen di nuyu Cheikh Hamsatu ak ñi nga àndal ñépp nee na mën na ne yaakaar na ne du waxtu jant sax ndax li ngeen doon def démb ba tey nekk ci xasaayid yi sëriñ Touba yi nga xam ne moo lamboo mboolem xeeti zikri yi ak xeeti salawaatu ala nabi yi ngeen nekk ci booba ba tey nee kon wóor nañu ne yéen ñi nga xam ne yéen a ci nekk nee jëlale nañ leen sax waaye boolem ku ko teewe xam nañu ne li nga xam ne suñu borom diggee na ko ci jataayub zikr ci jataayub zikr xam ne ku ko jege nga xam ne ku ko jege ku ne. sunu boroom jéggal na la. nee na kon loolu. tax na. nun nooy sant. teewe gi nu ko teewe. ànd koog yéen. nee na kon xam na ne li ci am solo rek. mooy yéene. yéene woon ngeen ko ci njaalbeen ga. Cheikh Mountakha mi. muy ñaanal seex Mountakha mi. yàlla bàyyi ko fi. yàlla bàyyi ko fi. àggaleel ko yéeneem. ko yéeneem. ci liggéeyu Serigne Touba. ci liggéeyu Serigne Touba bi. lii ngeen def nag. lii ngeen def nag. lu am solo la ci moom. lu am solo la ci moom. dugg na ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy liggéeyal. ndax dugg na ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy liggéeyal sëriñ bi. kon nag. kon nag. nu bokk ñaanal ko. nu bokk ñaanal ko. yàlla bàyyi ko fi. yàlla ko fi. àggaleel ko àggaleel ko yéeneem ci lool soxna Baali mi nga xam ne itam lépp bëggam la ak yéeneem waaye bëggam gépp ak yéeneem mooy jëm ci Cheikh Mountakha na kon nag bëggam googee ak yéeneem joojee ci liggéeyal Cheikh Mountakha mii noo ngi ñaan ci bis bii nee na xam na ne ñaanal ngeen ko sax. yàlla àggale ko. yàlla àggale ko. bàyyi ko fi. bàyyi ko lu baax. àggaleel ko yéeneem ci lu baax. àggaleel ci liggéeyal Cheikh Mountakha. àggaleel ci liggéeyal Cheikh Mountakha mii. nee na kon Cheikh Hamza. man nag dama doon wax naan baatub cant waaye nag teewut. nee na da doon wax baatub waaye nag teewut. teewul noo ngi leen di sant bu baax. waaye nag teewut noo ngi leen di sant bu baax. Cheikh Mountakha ngi leen di bu baax. Cheikh Mountakha mi ngi leen di sant bu baax. cant gi. moo tax cant gi. li tax cant gi. li tax gi. da ngeen a nekk ci li ko neex lool. da ngeen a nekk ci li ko neex lool. tax mu di leen sant. nee na kon nag looloo tax mu di leen sant. ngir loola di yokk. ngir loola di yokk. taxawaay bi di yokk. taxawaay bi di yokk. taxawaay bi nga xam ne yaa ngi koy taxaw sa liggéey maam bi ci sa xasiiday maam bi itam yàlla nangu ko. nee taxawaay bi nga xam ne yaa ngi koy taxaw sa liggéey maam bii ak ci sa xasiiday maam bi yàlla nangu ko. yàggal la ci. yàggal la ji. mboolem képp ku xam ak mbooleem képp ku nga xam ne mi ngi ànd ak yow képp koo xam ne mi ngi ànd ak yow ci liggéey bi. nee na kon jërëjëf Mbacke. yàlla na yàlla nangu lépp. kenn kenn ku ndax lim la suñu borom moo xam. nee na ndax suñu borom moo xam ku bëgg lim da ngay ñoom ton xam xol yi. suñu borom moo xam xol yi. te biig ba tey yéen a ngi ci. te biig ba tey yéen a ndax na ma ne. nee na kon wóor na ko ne. kenn ko ne. kenn ku ne. la nga bëggoon. la nga bëggoon. te yéene ko ci. te yéene ko ci. yàlla dana la ko defal. na kon jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. ñëpp taalal ñu ñaan rek.